jëlilaay maskani Tuubaa baat misras mi abijaayi abaat asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki Tuubaa ci kanam ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare doon ñëw ak yéen ci bilan weeru wu weeru janvier 2020 ci Tuubaa ci kanam li fi dugg ak li ci génn ñu tàmbalee ko ci Tuubaa ci li fi dugg ci weeru janvier deux mille vingt mi ngi toll ci quarante sept millions cent cinquante et un mille deux cent bu dee ci Ndakaaru ci njiitul Baye Sëñ Bousso ak Sëñ El Hadji Ndaw cinq millions quatre vingt huit mille cinq cent. Orange Money bi nga xam ne mooy soixante dix huit cinq cent quarante quatre trente trois trente trois li ci dugg ci weeru janvier deux mille vingt mi ngi toll ci cinq cent mille. bu dee Orange Money bi nga xam ne nag mooy jees cent quarante quatre jees six cent vingt jees ngeen tàmm ci jaari seen addiyee li ci dugg ci weeru janvier 2020 mi ngi toll ci 5 millions 586 mille 538 5 millions 586 mille 538 Tigo Cash bi léegi mu nekk Free Money 124 mille 258 bu dee daayira Babul Ayaadi te nekk ci Agnam Sewal ca Fouta 87 mille bu dee ca ci njiitu Serigne Dial Seck ak Soxna Rama Fall cent quarante sept mille ca Kébémer Serigne Gora Sill ak mboolem taalibe yi féete Kébémer sept cent quarante six mille bu dee ca Louga sëñ Moustapha Bassirou Mbuub ak mboolem taalibe yi mu nekkal Louga yëpp ci weeru janvier deux mille vingt seen liggéey agsi na mu toll ci un million six cent vingt sept mille bu dee ci Mbàkke Aji Joor Gay ak sëñ Mama Fall ak Soxna Kumba Ndiaye huit cent vingt six mille francs ci weeru janvier deux mille vingt bu dee ci bokki jaawee sëñ Talla Kane ak mboolem talibé yi nekk foofa soixante quinze mille versement anonyme mooy ñi nga xam ne dañuy dégg liggéey bi rek dem ci compte bi joxe fa seen xaalis te duñ def seen tour wala léeg-léeg sax ñu def seen tur waaye bokkut ak ñu miin ci liggéey bi loolu mi ngi toll ci deux millions quatre cent quarante huit mille neuf cent deux deux millions quatre cent quarante huit mille neuf cent deux bu dee ca Mbour Serigne moor suran ak mbokki Mbour yëpp mi ngi toll ci huit cent deux mille trois cent ca Thiès sëñ Bay Sall ab liggéeyam ak si Touba Ca Kanam weeru janvier deux mille vingt mu toll ci neuf cent mille francs ca Wélingara Serigne Mbacke Guèye ak mboolem talibé yi féete foofu soixante treize mille francs ca Kaolack sëñ Moustapha ture ci njiitu sëñ Babacar Mbacke mu kabaru liggéey bi agsi na mu toll ci un million cent seize mille ca njaareem soxna Daba Mbakke ak soxna Ndeye Ndiaye Baye Fall un million six cent cinquante mille ca Kédougou sëñ Modou ak mboolem waa Kédougou trois cent mille huit cent ca Kujaan sëriñ Ibrahima Niang vingt deux mille francs ca Mboro soxna Fatou Manel ak waa Mboro yëpp ci weeru janvier deux mille vingt liggéey bi agsi na mu toll ci cent quatre vingt cinq mille. ca Ngunjaan sëriñ Modou Thiam. ak waa Ngunjaan cinquante mille francs ca Ross Béthio sëñ Aliou Ñing cent quatre-vingt-dix-sept mille ca Jiwaalo sëriñ Basiru Thiaw ak mboolem taalibe yéen féete foofa trois cent mille ca Jifeer sëñ Ousmane Ndiaye cent cinquante mille ca Kafountine ci njiitul sëñ Jëmbu Cissé ak sëriñ Cheikh Fall cent soixante-dix mille ca Ourossogui soxna May Mbakke ak mboolem taaliba yi nekk foofu cent trente mille francs ca Casamance sëñ Mamadou Xari Guèye deux cent cinquante neuf mille ca Kolda Moussa Sène ak mboolem taaliba yi féete foofa deux cent quatre vingt dix mille ca Ngaay Mexe soxna Nogay Jiite cent mille francs ca Fuuta dëkk bu ñuy wax Onaare sëriñ Mbakke Lo cent mille francs ce Fuuta ba tey sëriñ Mouhamadou Fadal deux cent deux mille bu dee ci Tamba sëñ Adama ñas ak mboolem waa Tamba sept cent mille francs ci Daaru Salaam Jogo sëriñ Basiru Cissé ak mboolem taalibe yi nekk foofa liggéey bi aksi na ci weeru janvier deux mille vingt mu toll ci cinquante mille francs ci ajaay ci njiitul sëriñ Fallou cinquante mille francs jaw bi sëriñ Baara Diop léegi bi agsi na mu toll ci deux cent mille francs am na it ay jaayante yu fi ñëw ci weeru janvier deux mille vingt muy Serigne Boub CCBM un million franc Serigne Bay Sarr bu Sénécartour cinq cent mille franc am na itam bisu ngontum jaayante muñ defoon ci marché Daaru Xuddus moom itam ay jàmbaar lañ wax dëgg yàlla deux million cinquante mille trois cent euh, daayira soppee Serigne Saliou ñu leen sant bu baax taxawaay bi ñoom tamit quatre cent vingt six mille six cent vingt bu dee ca Bakel dëkk bu bu tudd Diawara Serigne Cheikh Anne ak tubali taalibe fa nekk cinquante deux mille cinq cent cinquante deux mille cinq cent bu dee ci Daaru Musti soxna Daba Mbàkke ak soxna Maam Faati Mbàkke cinquante mille francs bu dee frais bancaires yu banque atlantique deux cent quatre-vingt-quatorze francs bopp Silla ci njiitu suñu Ahmad Bamba Silla sept cent cinquante mille francs kon boo boolee total li nga xam ni moo jóge ci biir réew mi ñëw ci compte Touba ci kanam ci weeru janvier deux mille vingt mu ngi toll ci soixante-dix-sept millions deux cent deux mille deux cent douze soixante-dix-sept millions deux cent deux mille deux cent douze bu dee ci lamp yi nga xam Touba ci kanam da ko fàggu woon ngir mu jëm ci buntu kër yi liñ ci jot a wecc ko mu mbokki taalibe bi indi ko ci barkeelu bi mu ngi toll ci 4 millions 17 mille francs bu dee ci institut islamique bi tamit am na barkeelu bu ñu ci jot mu toll ci 75 mille université institut mooy université bi sànq ba di liggéey bu dee ci wàllu bitim réew ñu tàmbalee ko ci Amérique ci Argentine Serigne Pape Soda Sey ak waa cent 350 mille francs agsi na ci liggéey bi ci weeru janvier 2020 ci Amérique sëriñ Sohaibou Seck sëriñ Masey Ndiir ak mboolem mbokki taalibe bi fa nekk 3 millions 419 mille 640 kon boo jëlee totalu continent américain bi dafa ñëw ci weeru janvier 2020 mi ngi toll ci 3 millions 769 mille 640. bu dee ci diwaanu Europe ñu tàmbalee ko ci Espagne sëriñ Malick Dieng ak mboolem taalibe yi fa nekk 3 millions 131 mille 176 ak si na ci tukkanti Touba ci kanam ci weeru janvier 2020. Italie ci njiitul suñ xaas Jóob ak coordination bi ñu ko àndal ñëpp sept millions neuf cent cinquante mille quatre cent cinquante sept millions neuf cent cinquante mille quatre cent cinquante bu dee ci diwaanu France coordination France quatre cent trente six mille vingt quatre francs kon boo boolee total Europe di jóge ci Europe lépp ci weeru janvier deux mille vingt mi ngi toll ci onze millions cinq cent dix sept mille six cent cinquante onze millions cinq cent dix-sept mille six cent cinquante bu dee ci diwaanu Afrique Afrique du Sud lañ koy tàmbalee ci sëñ Mor Dieng ak mboolem taalibe yam nekkal foofa un million cinquante mille ca Mali sëriñ Alioune Waaj un million trente deux mille cinq cent ca Mauritanie sëriñ Ibrahima Sarr un million trois cent dix huit mille bu dee ca Guinée Bissau sëriñ Moodu Ata Seck huit cent trente et un mille quatre cent kon boo jëlee li ay ci zone Afrique bi lépp dugg ci kon Touba ci kanam ci weeru janvier deux mille vingt mi ngi toll ci quatre millions deux cent trente et mille neuf cent. li nga xam ne moo dugg ci compte Touba ci kanam yëpp nag ci weeru janvier deux mille vingt mi ngi toll ci cent millions cent millions huit cent treize mille quatre cent deux cent millions huit cent treize mille quatre cent deux bu dee li nga ni mooy. décaissement yi maanaam li génne ci compte Touba ci kanam ci weeru janvier deux mille ñu tàmbalee ko ci chantier Bobarel mooy hôpital bi Touba ci kanam tabax ci diwaanu Bobarel li ci li ñu ci def ci weeru janvier deux mille mi ngi toll ci deux millions trois cent cinq mille deux cent cinquante deux millions trois cent cinq mille deux cent cinquante ca hôpital bi Touba ci kanam bi tabax Kër Gol moom tam ci quartier bu nekk ci biir Touba. huit cent vingt et un mille cinq cent ci hôpital bi tubaa ci kanam di tabax Daaru Xaddim ci biir tubaa moom it trois millions sept cent soixante mille vingt cinq francs trois millions sept cent soixante mille vingt cinq francs bu dee ci wàllu daara yi ndax Touba ci kanam dafa am taxawaayu jël juróom-ñaar fukki daara def daara ju ci ne ñu xool lañ soxla moo xam ay mbaar la moo xam ay wanak moo xam ay miir moo xam ay néegi donga yi fanaan ñu tàmbalee ko juróom-ñaar fukki daara dañ ci Touba ci kanam def ci weeru janvier deux mille vingt mi ngi toll ci dix millions huit cent soixante onze mille dix millions huit cent soixante onze mille. bu dee ci lu jëm ci université bu mag bi nekk Touba te Touba ci kanam am fa taxawaay bu rëy jël ca bâtiment bu Touba ci kanam war a tabax war caa def lu toll ci juróom-ñetti téeméeri millions ci weeru janvier deux mille ci kanam dugal na ca quarante et un millions cent quatre cent. 41 millions 186 mille 300 bu dee ci hôpital bi Touba ci kanam di tabax ci Touba Njaareem ci biir Touba ba tey li ñu ci dugal ci weeru janvier 2020 mi ngi toll ci 4 millions 182 mille 4 millions 182 mille ku nekk gis na jamono ji ay lamp yu Touba ci kanam andi woon ci biir dëkk bi ngir leeral dëkk bi ñu tudde woon ko ñu tudde woon ko leeral leeral Touba ci diggante ay fiil ay kaabal ak yi ànd ci montage bi li ci Touba ci kanam def mi ngi toll ci 1 million 972 mille 675 1 million 972 mille 675 bu dee ci quartier yi nga xam dañoo nekk ci sancaan yi te war Touba te am na ci yoo xam ne ndox dafa xawoon a manqué wala ndox amagu fa woon Touba ci kanam doon leen andil ndox ànd koog Maawu Rahmati ci weeru janvier 2020 Touba ci kanam def na ci 4 millions 30 mille li ñu woowee charge fixe. mooy salaire yeeg ñiy liggéey ci Touba kanam ak li ci aju lu ci bari ak ñi ciy liggéey ak safoor yeeg yooyu Touba ci kanam def na mu ngi mi ngi toll ci weeru janvier deux mille vingt mi ngi toll ci quatre millions deux mille cinq cent. léegi ci la aju ci communication yi mooy bats yeeg carnet reçu yeeg yu ci bëri yu mel ni loolu ak ci communication bi lu ci bëri déplacement yenn yeeg yooyu ci communication bi un million deux cent trente neuf mille huit cent. bu dee ci commune commune commission massification mooy ñi dañ wax dañoo bu leen fàtte dañoo defoon ab tournée dem Fuuta Ndar ci dëkk yu bëri ci biir Sénégal tournée booba un million six cent cinquante deux mille huit cent bu dee ci budget fonctionnement mooy transport mooy collecteurs yeeg ñi nekk ci dajale reçu yeeg ñi nekk ci kiosque yi fi ñuy laajee addee jeg yooyu un million cinq cent quatre-vingt-un mille sept cent am na it conteneur bu ay mbokki taalibe yu nekk ci di diwaanu Amérique jaayante woon mu defoon ay garab ay ay matériel hôpital yu bëree bëri yu takku ci weeru janvier deux mille vingt am na ci fere bu ci def mu toll ci soixante trois cent soixante-treize mille bu dee ci wàllu camion yi Touba ci kanam ak oto yi Touba ci kanam di liggéeyloo dañuy def jëli xeer beeg fer ak ciment ak suuf ci liggéeyu chantier yi un million quatre cent trente cinq mille trois cent trente frais bancaires yi nga xam ne yi dañ koy dagg ci compte yi di ko ci dellawaat bu weer wi jeexee vingt neuf mille six cent soixante dix sept li génn ci compte yi Touba ci kanam ci weeru janvier deux mille vingt ñu toll ci soixante dix neuf millions quatre cent quarante trois mille cinq cent cinquante sept soixante dix neuf mille cinq cent kon boo boolee li jotoon dugg ci kees gi. ci weeru janvier 2001 muy 100 millions 813 mille 402 nga génn ci frais nga génn ci décaissement li ci génn ci compte bi mooy 79 millions 443 mille 557 kon daf ciy des ci weeru janvier 2020 21 millions 369 mille 845 bu fekk see la fa desoon ci weeru jan ci 31 décembre 2019 desoon ci compte yi mu doonoon 634 millions 835 mille 680 kon ci 30 janvier deux mille vingt li nekk ci compte Touba ci kanam mi ngi toll ci six cent cinquante six millions deux cent cinq mille cinq cent vingt cinq six cent cinquante six millions deux cent cinq mille cinq cent vingt cinq ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm di ñaanal Cheikh mu yàgg loolu te wér wasalaamaaleykum wa rahmatullah jalilaay maskani Touba misrasmi